taxaw fii nag ku def nag li nga xam ne nag mooy Semester Avenue yéen a ma gën a xam Semester Avenue ni ñu koy defee moodu li nga xam ne nag mooy jàmm ñu nekk si télé bi ñoo fi ñëw ah, di leen support ah, di leen jaay ci xol di leen liggéey kenn du yéen tamit tey kenn du fi rafet yéen la ah su ko wax mu gën a waaye sama sëy digga digga ngeen comme nag da maa topp rek ma daagu comme ni ma ko waxee man maay ma dem daagu man daagu rek lay def da naa daagu ñu ànd ak def nii nag ma cumba fii si biir airport bi seet na semestre yi ñëw leen na semestre yi ay tapat lañu na semestre yi dañu ragal li nga xam ne nag jamono ji moom la gars yi di wax si Gambia ñi ko ngee wax ne li nga xam ne nag mooy dixième ba bi dina nar a garaaw xam naa ne ñoom it dinañ war a daw waaye it na